suñ ne parti bi représenté par diw parti B représenté par diw del xool chaque jour ba ci contrat yi ñuy signé CDD lu mu ti ne ci suuf dañ lay bindal ne la en cas de pépin. Mm-hmm. <laughs> su amee problème. su amee problème dañ koy résilier wala dañ koy régler à l'amiable wala dañuy dem ci tribunaux yi nga xamante ni ñoo compétent mm-hmm. pour àtte ñu. Mm-hmm. mais fan nga mës a mais sëy moo gën a sacré. sacré day am kii. te ubbi nañ fa ay ay ay ubbi nañ fa ay clause. Mhm. ci ci ni ngeen di séparé wu. mooy ci côté diine. waaw comme ci côté saayir nii ci tribunal bi. ci tribunal bi côté loi. muy côté loi. Mhm. mais man léegi-léeg da ngay toog di dégg gars yi naan non c'est que lii c'est contrat boo xam ne beton la. <laughs> kenn mënu ko renégocier. <laughs> <laughs> caaxaan ba pare lu lu lu doyaat waar mooy yow bu doon ñeen ay sénégalais lañ dem dëkku jàmbur. toog ca alalu jàmbur. comme nit ñu ko defee ñu ne sawaay nag xoolal bàyyi coow yaaw yaa ñëw dëkku jàmbur signé fii ñoom dañ dem ba gisatuñ ci seen bopp ne dinañ ko fi yemale. Mm-hmm. nga ne nga ne nga ne nga ne da ngay xeex ci miraasu bàyyi jàmbur. waaw mel ni dof ba. waaw génnal réew mi mais yow yow loo xamante ni nii yow jaara zircon bi yow yaa ko moom. waaw fer bi yaa ko moom. Mm-hmm. pétrole bi yaa ko moom phosphate bi yaa ko moom. mais sa waay jën yi yaa ko moom li nga signé yow yaa ko moom ba pare xanaa nit ñëw ngeen signé yow sa bopp dama ne yow sa bopp parce que état continuité la. état moom moo signé woon contrat yi état moo fi ne ba tey. ba tey de su ko neexee li ñu naan les hommes passent les institutions demeurent. ces institutions là ah waaw mais moom mooy état état moo signé woon état moo dem ba ci biir xam ne neexul ba neexul mais lii. man gisuma ci sama bopp ñaata jour la fi seen contrat jeexul gars ñu ne dañuy dem. bëri na ñaata jour la fi seen contrat jeexagul président bi ne da lay da lay da lay prêter. bëri wala da lay jaay jaay dalay jaay ci boppam jël nit jaay ko. mu jaay la ñu yemale fa match ba yow nga dem ci beneen club daje club bi la jaayoon xaw leen a rey. Mm-hmm. mënoo ci waaw mais léeg-léeg man damay toog ci débat yi di dégg ñu ne woy. waaw diw mi moom vraiment xam-xamam dafa mat ci jëm ci wàllum nangam mais ce qu'il di dit sawaay dafa mel ni gaayeen sawaay ñin on est foutu ñin ñin kon mënatuñ ci dara comité bi ñu defar nii te ñu annonce ko ci conseil des ministres daf ci am ay mbir yoo xam ni yu yu stratégique yooyu kenn du ko fooyee mm-hmm. par exemple tey rek ñu ne wàllum pétrole bi ak gaz bi ñu ne bon yéen Sénégal dix pour cent ngeen ci am ci cent pour cent <laughs> état ne la waay yow sa waay kaa ñu renégocier waat li nga ne renégocier wu ma dara. dañ cee def béton. dañ cee def béton te wow na koŋ ba ndaraanu état fekk ko fa. ak ni mu amee doole. ba ba caterpillar yi ñëw ba xam buñ ko songee immeuble bi ñu tabaxee euh, beto militaire bu ñuul bi dana toj wala du toj gis nga jaara mhm. ñii nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite askan wi ñoo leen fi teg. il sont là pour askan wi bu yàlla dogalee nag yàlla xéewali la ay njiit yoo xam ni ñoom dañu xam ne ñii ñoo ñu fi teg ñun nous travaillons pour ñii bu yeboo nga daw ba dee mais bu dee yàlla daf la nattoo xéewali la ay njiit yoo xamante ni nii sugu ñooñu moom askan wi dund ak ñàkk dund c'est le cadet de leur si comme ni ko maay ba di waxee ñoom seen yoon ñun li ñu intéressé mooy nañu signé contrat yi laal suñuy douze pour cent nañu ko signé laal suñu nangam pour cent quelque que soit projet bi nu bu yeboo Sénégal bu ñu ci bénéficié wu mais ñin ñii di ko signé nañ ci bénéficié wu rek réew bu ñu demee ba tollu foofu moom moo indi lii mm-hmm. yow yaa moom lépp àdduna bi yëpp ñu ngi la song américains yi ñoo ngi la song wala britanniques yi ñu ngi la song euh, russes yi ñu ngi la song chinois yi ñu ngi la song saoudiens yi ñu ngi la song ku ci nekk mi ngi la songu ci dara suñu gerte gi nga xam ne nit ñi dañ ko doon xeeb sax léegi ñëpp a ngi cay dugg. waaw Brésil a ngi taxaw sa buntu kër. Arabie Saoudite taxaw Chine taxaw mais am ci yenn ci ay xonq nopp yoo xamante ni nii yow mel ni dañ laa liggéey nga ragal leen ragal a ragal ragal a ragal ba yow daal lépp loo am jox leen te duñ leen indil dara mooy coow li amoon fii ak groupe Bolloré. ak port autonome de Dakar Dubaï it yi di ñëw Sarko di wax Ablaye Wade nañ ko. le sujet kii fas xaw ma la question kii fas luy fase yow 1900 war nga dërëm ba léegi yow Bolloré yaa nekk ci suñu port bi toog ci réew mi population bi saa bu ñu xëyee di gën di ndóol saa yi bu ñu xëyee semence bi di gën di yokk ñu ne nañ leen def ouverture laal Asie laal fépp indi naar yi indi waa Russie indi waa nangam sax ñu ne noo boo laaleeg Russie gaañ est-ce que France du mer. mais où est la hmm. te yow boo jotee sa sa doomu dëkk. ngeen dem ci tribunaux yi muy CEDEAO comme muy Nations uni mu gañe la nga war ko appliquer parce que yaa ngi signé ay convention internationale nga ne la souveraineté le Sénégal est un pays souverain autonome nekkul ne dañuy dicter lii ak lii ak lii yëg lii ak lii yow tu es souverain tu es yaa moom sa bopp yor sab alal ay multinationales taxaw fii ne la ñun duñ fay impôt mais loolu dafa doy waar. xoolal libération journalu turc bii nii gayen muy bind chaque jour. te te te juge bi ne amul dellu ginnaaw mais sa waay ay redressement fiscal yoo xam ne ñii dix huit milliards ñii quatre milliards ñii neuf milliards ma ne waa milliards yi lii mbaa jàmm la ci ay sociétés yoo xamante ni nii gayen yow du seen ndey du seen bàyyi ay xonqi nopp lañu nekk ci mim réew yow ci jamono jooju yow état ngay kalangaatu gayen ci ay sociétés nationales yoo xamante ni bu ñu añee duñ reer punkal yi nekk fi gars nelaw ne la ñun fayuñu comité boobu premier ministre bi def ci ndigalu njiitu réew mi dañ cee war a gaaw sénégalais seen bopp dañoo war di gis seen bopp ci seenuk alal loolu moom mooy dëgg. Mm-hmm. amoon na fi libi benn instant gars yi xeex nañ ko mu daanu. Mm-hmm. amoon na fi ci ay réew yu baree baree baree baree baree bare te man li ma jaaxal mooy. ñun daal xam naa ni daal ñun daal ñun daal ñun daal Afrique daal ñoo ñaaw yaay man daal lii jaaxal na ma mais yenn yoo xamante ni nii nasaraan yi dañ koy def mais pourquoi duñ man li ma jaaxal mooy pourquoi yow doo xool benn pays européen boo xam ne gars yi dafa am nga am kii yéen France ngeen dem fa mais pourquoi chaque jour mais mais mais mais mais mais mais waaw Afrique ci boppam ñun dëree ñuul yi ñun bañ ñàkk fayda la ñu wan ñun yenn réew yi bañ war ñoo yàpp nii rek. topp ñu rek ne duñu bàyyi. yéeg ñu rek ne duñu wàcc. mais man loolu moom ma jaaxal waaye mais comme que ñii nii ñëw nii moom ci génération bu bees bi lañ. Hmm. ah man de yaakaar naa ne moom sa waay fii la mbir mi di jaaree nag moom baax ba illaa yow mi diin xam nga tëggu semmiñ. waaw neex benn naqari benn. Hmm. fii la mbir mi di jaaree moom jaara de illaay changer ba faaw moom la ñu bëgg de. contrat yi daal li nga question bi nga posé loolu moom mooy dëgg. Hmm. question contrat yi dañ koo war a xoolaat sénégalais seen bopp di gis seen bopp ci napp gi keroog bi ñu ne arrêté leen bateau nangam keroog la génnee ball ci biir géej gi ku nekk di def vidéo xale yi di yuuxu. visible. mais yow say ci boppam nekk diggante Joal gii nekk Yaraax gii. nekk yoof gi nekk ca lompul gële mais sa waay gaa yi toog di souffrir. Mhm. gaa yi ne leen yéen dootoo leen nappati teew nga nekk ci biir dëkk nappkat yi topp gouvernement wu Sénégal ñu ne Mauritanie Gambie Guinée Sénégal ku nekk na génnee rapport am teg ñu xam yenn navire ñoom ñooy napp ci seeni gaal seen seeni géej Gambie gii rek ak Mauritanie gii ñoom ñu def dañoo bokk benn fédération mais Sénégal gayeen topp nguur fukki at ni la génneel wane yan bato ñoo am këyit ak yu amul këyit sa waay nga bañ mel ni yow teg ab dil boo xam ne yow boo bu feeñee tey tubaab bi rey la ministre pes bu bees bii ñëw ci nguuru jomaay gi defoo ñetti weer ñaari weer yu ma defagoo ko publier liste ne ñii lañ autorisé provisoirement pour l'instant nii ñuy napp yéen ñii ñëpp génn leen ndox yi question de volonté la jaaral. tout à fait xam yenn saa yi nga jéem dara sax ñu ne amul moyen ndeysaan bu mu ko defee quoi looloo ko sonal mais nga jéem dara te état lu mu mënul wala. Mm-hmm. état état central central. comité bi nañ ci taxaw ñu def suivi ñu xool sénégalais ci boppam tey vingt quatre heures loolu la bind mille neuf cent soixante ba léegi amul programme ah xam nga liy mandargaal ne manque de volonte dafa am ci réew mi. Mm-hmm. ak yëfumaa tey corps de contrôle état bu ñu génnee audit ba pare bañ ne diw ak diw ak diw dañ leen a épinglé mais du ñu inquiété du ñu tiit parce que dañ daan xoolal wuy ma. Mm-hmm. ñoo tey te dañoo lekk dix milliards yi du mujj fenn. effectivement chaque mercredi nga gis waa ji mu toog ci conseil des ministres nice good fine quoi moom di dem di ñëw comme si de rien n'était comme dara musul xew. fekk épinglé nañ ko bu yàgg. alors que yow yow yow du opposant du journaliste du société civile yow corps contrôle état inspection général d' état wala cour des comptes ci boppam ñoom ñoo ne lii ak lii ak lii ba pare indi prévu indi ñëw teg. Mhm. laataa ñuy dem ci nomination yi mën ngeen a continuer ngeen aimer partager live bi s'il su ko defee ñi nga xamante ni jotagul notification ñu mën ko daal di jot. honorable lu jëm ci révision constitutionnelle euh, bi jamono ji ñu toll ni chef euh, euh, de l'état jamono ji annoncé na ngir ñu ne daf ko daal di bëgg a amal suñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni seen xam màcc xam-xam màcc na jëm ci wàllu woowu leen nee nañ am na sañ-sañ bi ginnaaw suñu sukkandikoo ci article 51 bi mu mel ni daal lu ni mel du ñu ne guleel la ci réewum Sénégal gis nañ 2001 président Wade defoon na ko 2016 également président Macky Sall def na ko cette fois ci ñu gis ni président Diomaye daal di révision constitutionnelle bi ban gis-gis nga ci am. xam nga